lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmmalul boppam soxna mbokk julin mbokk taalibe ñu leen nuyu yéen ñëpp kenn ku sa tur ak sa sant di la baal baax te di leen jéggulu tey siyaare mboolem koo xamante ni dal nga fii si biir daal si biir turandoo soxna jaara yi man maa ngi tudd soxna maam jaara Diop tubaa Madiana di porte-parole soxna jaara yi liggéey bi yaakaar naa liggéey bu am solo la liggéey boo xamante ni yaakaar naa ne bitim réew fu nekk am na ci solo torop fu nekk ñu ngi koy def ci biir réew mi yaakaar naa ni ñun turandoo soxna jaare yi am nañ fenn fu nekk am nañ Mbuur am Dakar am Touba am fi nga xamante ni caameen fu ci nekk ci biir réew mi lépp nag soxna Amady Sylla moom Serigne Souhaïbou moom moo jiite lépp ñu turandoo soxna jaare yi yaa boobu nag dañoo dajaloo dem Serigne Mountakha mutal ñu benn tur boo xamante ni tur fédération la ñu koy woo al siddi xool wa faaxi yaakaar naa ni ñu solo ci biir poroxaan ji moom la ñuy def dañuy def àllarba bu jot ñu def daayira dajale li nga xamante ni moom la ñu am addiyee soxna jaara Buso noté ko dajale ko section bu nekk nag moom lay def waaye nag teewul am nañ ab fédération boo xamante ni ñoom ñooy def kenn ku nekk sa daayira fii nag mooy bërëb bu mag bi nga xamante ne fii la ñuy defee poroxaan nga xamante ne section yëpp bu poroxaan fii la ñuy dajee si biir daara ji teewul am nañ ay groupe whatsapp yoo xamante ne ci la ñu waxtaan bala ñoo ñëw fii si biir daara ji kon yaakaar naa liggéey bi lu ci ëpp ponk première ponk bi loolu la yaakaar naa ne côté bu am solo boobu moom soxna siñ ko defal sax jaaxal na ko ndax barki démb la dafa ñëw fekk sëñ Muntaxa barki mu toog di waxtaan ak moom bi mu toogee di waxtaan ak moom ñun ñu am ci mbégte ab vidéo la ñu capturé ko dagg ko xam ne buñ ko ko joxee loo xam ne def na ko barki démb dana ci am kontaan ak mbégte baax a baax ndax soxna soxna jaare yi dafa bëri ñoo xam ni ay jàngkat lañ am ñoo xam ne jàng nañ français am ñu jàng arab am ñu jàng alxuraan ba wàcc am ñoo xamante ni jàng nañ alxuraan ba wàcc si biir daara ji am na ñoo xamante ne mokkal nañ alxuraan te teewu ci biir daara bi la ñuy doxee photo bi nag lu tax ñu def ko dañoo xam ni moom mooy Baye Fall soxna jaara di soppeeb sëñ Muntaxa looloo tax ñu defal ko photo bi defaral ko ko xam ne mbégte la si jëlee looloo tax ñu def ko tey. jaara Caam la. mu mel ne tey ñu ngi la fekk fii ci Porokhane kër soxna Ami Sila yéen ngeen di ay turandooy soxna maam Diarra ngeen di amal liggéey bu am solo euh, yow nga bokk ci ñenn ñi nga xam ne jiite liggéey. waaw ci ren de moom ñooy maam Diarra Thiam secrétaire bu daayira Fatuha bu kàcc maam Asta Waalo ñun liggéey bi moom rafetlu nañ ko ndax bàjjan ku ko xam xam na ko kenn ku bëgg liggéey sëñ Touba la ñu nekk ay ndaw mu boole ñu dajale ñu boole ñu ak suñuy yaay ak suñuy mag ñu bokk nekkaloo ci daayira bi liggéey liggéey bu ñu koy sant ko gërëm di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak xanaa ñu jéem a sàcc suñu bàjjen ay ay jikko donte doon soxna jaara moom doon soxna jaara moom yombul mais sàcc ay jikkoom yomb na ñu jéem a sàcc ay jikkoom jéem a tarbi yu borom kër yi ba jéem a fexe bu doon 100 pour cent rek suñu bàjjen buñ ci amee lu mat 5 pour cent sax baax na. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaato ah mbokki julli di mbokki taalibe yi maa ngi nuyu kenn ku ne ak santam. di leen balu àq bu baax ci coono yi te di leen bal di leen masawu coono ndax fañ jóge ba ñëw fii sori na lool waaye lépp sëñ baax soxna jaara jaral nanu ko noo ngi nuyu képp koo xam ne sab jataay yaa ci jataay bi toog ci Poroxaan di kër gi ñu tuddee Touba Madiyana numéro un di sant bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp tey jaajëfal ñëpp ci coono yi te leen balu àq bu baax te di leen baal tey sant yàlla bu baax a baax ci liggéey bi di sant soxna jaara mi nga xam ne moom nañ fekk si lépp lu ko a ñaan may nanu ko waaye tey nag moom nanu gën a baddil xéwal yi mu gën a baawaan ndaxte kat yëfi kat day ay jaayanteeg lépp la ci am jàmbaar gi dañoo gën a yokk seen jàmbaar gën a yokk seen pasteef ñi ngi nuyu ñëpp ci turu turandooy maam jaar yi nag lañ jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen ñaanal tawfeex tey xam ne kat liggéey bi rafet na lool waaye yéen ko rafetal ndax teraanga jigéen may teral di ko def wax dëgg yàlla maa leen ko a defal dikk gi rek dafa doy waaye teraanga ñi andi rek dafa dëgg yàlla rëy ci ban lool sant képp wax ne ñëw nga ci daayira bi rek bokk ci liggéey sëñ Tuubaa bi sant naa la gërëm naa la waaye nag di sant sama soxna si a dendal xam ne maa ko wàccee mu doon sama baay faal ma na fu ma ne fekk na ma fa waar yu ñu doon jaayante jaayante na ci ba joxe wala mu doon joxe maa ngi sant di ko ñaanal xéewalam yokku sama soxna suma wàccee mu bëgg ma tel lu ne ma di ma ko defal sëñ bi liggéey bi liggéey jaayante la ndax liggéey bi jaayante moo yor yoon wi ndax sëñ bi dafa waxoon ca Mbàkke Kajoor ne ku fi nga indi woon ak xam xam dara na nga dellu fa nga jóge woon man nekk du ma di jàngale sunu borom xamal na ma ne lépp ci sama loxo la nekk li fi nekk nag u sër dañ koy jaay mooy ahlam du naf si jébal joxe sa bopp ñu digal la nga ñu tere la nga bàyyi léegi nag loolu mu def loolu mooy yoonu murit jaayante tey ci jaayante moo ko moo koy sil fii ndax lépp lu ñu fi def rek bari na ci loxo ne jaayante la li ci si tam mu nekk loo xam ne nekk na liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla mënu maax sax fu mu yem daal lu ne jaayante nañ ko lu ne murit du joxe rek joxe nañ ko maar mi nga gis ñun nii dañ koo jaayantee kuule déwén par tonne ciment kenn ku ne tonne ciment kenn ku ne tonne ciment donte mënuñu ko seen xol def loolu leen ko ñenn ñi seen alal teew na ba noppi jaayante boobu nag moo yor yoon wi ndax ci lañ ko fekkoon di ñaan sant yàlla baax di ñaan képp ku jaayante rek yàlla ci sëñ Tuubaa defal ndam mooy jigéen ñëpp war nañoo jàngee ci lii ne ku def lu baax am lu baax ndax soxna jaara fanweer ak ñettam yooyu sànku ko benn yoon lépp ci lu baax la ko def lépp ci lu baax la ko wax te teew ko di jaamu yàlla jaamu yàlla gu mat sëkk kon nag dañu sant yàlla di sant jigéen ñëpp ñu gën a góorgóorlu ci liggéey seeni sëriñ ak def lu baax ak jaamu yàlla ak ragal yàlla ak dëgg bëgg lu baax te di ko jëf ndax lu baax kenn du ko ba jëli ci lu bon kon nag jullit ji ak taalibe yi jigéen ñi ñëpp nañ ne ci lu baax taalibe yi nañ bëgg sëñ Tuubaa di ko liggéeyal bàyyi jigéen ñi nañ nekk topp seen ndigal sëriñ te wéy ci ndigal di bàyyi tere buñ ko fee nañ am lu baax soxna Selem am moo ko wutal boppam kenn ko moo ko tàkkal ñu koy gërëm di ko sant bu sa baali lépp ci liggéeyam rek la di dem liggéey bu rafet bi rek moo ñu yóbbu fu ne jërëjëf soxna jaara bi li ma ci xam mooy loolu moom mbirum sun borom la <clears throat> loolu sëñ Tuubaa ma ko defal te bëgg gi ma ko bëgg sama xol moom la ma nit ñi bëggee seen xol ndax nit ñi dofuñu ku bëgg sëñ Tuubaa ñu bëgg la damaa bëgg sëñ Tuubaa bañ xam ko ñu bëgg ma benn ci kii toog ak ñi fi jógee léegi di waa ka soxna maam Faati Marimaloo doomi sëñ Moodu Moustapha la waaye bëgg gi ma bëgg li ma bëgg sëñ Tuubaa tax ma bëgg ma sama xol bi sëñ Tuubaa doong moo ci nekk boolewuma ci dara kon nag ñëpp bëgg sëñ Tuubaa rek nan bëgg sëñ Tuubaa di ñaan sëñ mu tàqaa mu yàgg fi de wér ndax lépp mooma ballke ball jërëjëf lay teema jóg way fi ngeen jilin sa wey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara